du nuyu ñëpp nee na nag lu tax ma gëj fii mooy euh, àjjuma day tombe rek may aye suma suma ayee duma <laughs> mën a ñëw suma ayewul comme nii rek laa tëb miir ñëw vite fait dawaat ah? <laughs> la ma tëb miir ba bala maa tontu nag ci laaj bi comme damaa gëj euh, génn te dafa am yu bëri yu fi xew yoo xam ne aw ma occasion wax si nga may ma rek ma wax benn minute ci li ma yàgg wax bala ma wax ba fàtte ko euh, mooy di encore une fois di rafetlu bu baax euh, ni ñu libéré sama xarit euh, le grand chroniqueur de tous les temps Cheikh baare Ndiaye <laughs> euh, di kontaan bu baax ci cette mesure laa waaye nag bëggoon ñu yaatal ko ci man nag samay samay xarit laay waxal nag. ñoo ñoo ñoo kii Basiru voilà donc Basiru moom laay mujjee. Mm. Abdou Karim Gueye xurum xaraam. Euh, ku mérité ak ku ñu war a libéré la euh, ndax euh, waxu ko fenn jooytuwul damul pavillon spécial mais ku wérgu yaramam tàggatémbe la te ku war a génn la de la même manière Cheikh Oumar Diagne ak tamit Babacar Ndiaye mi nga xam ne seen GPS la la bokk waaye Bassirou Diomaye Faye moom lay mujjee ndax yëg naa démb xamu bër ci démb ñu wax ne dañuy euh, def jonction mhm. entre dossier am ak euh, dossier euh, Ousmane Sonko j'espère que ça ne sera pas confirmé parce que si c'est confirmé wax dëgg yàlla injustice bu doy waar la bu inacceptable ndax mënuñoo jàpp nit euh, ci benn phrase muy clochardisation de la justice mhm. loolu la wax ñu jàpp ko depuis euh, ay weer dugal ko fa mhm. euh, def benn acharnement bu bu incroyable ci moom Euh, amul liberté provisoire euh, sàq na ko ba sonn amul contrôle judiciaire chaque jour ñu ngi ko fi maye te ñu ngi ko fi may ak ñi fi toog ba tey di def ak di wax yu garaaw defuñu ko waaye ñu bëgg jël ñaar yoo xam ne àndul xam nga ne Sonko mais loolu ñu ko yan huit xaw ma huit chef d'accusation grand Serigne xaw ma sept chef d'accusation ba ñu ko ko yenee pavillon spécial la yeewoo donc xam nga ne Bassirou Diomaye Faye bi ñu ko bëggee yanaale loolu mooy kon dugg euh, fas ñu ko yéen a génneel loolu nag laay ñaan vraiment Euh, autorités yi te su ma nee autorités yi euh, président de la république euh, c' est le mieux indiqué pour ça ndaxte mooy clé de voûte des institutions moom nag laay ñaan wax dëgg yàlla mu wis ndox mu sedd ci yii ndax ñoom ñoo réformer justice ba kenn ku nekk am nañu lu ñu la mën a mayee aafiya waaye tëj tëj nit tëjaale ña fa nekk ñëpp nga tëj leen de manière arbitraire loolu lu ñu war a lu fi war a jóge la bu loolu weesoo nag nen euh, ne ma ñëw ci sa laaj euh, bu Amadou Ba bi euh, bett na ma bett ma hmm. li tax mu ma ni bett na ma mooy Oustaz Seck waaw Oustaz Assane Seck ndeysaan moom tamit voilà moom tamit ndeysaan xool ñu ñaa ngi fàtte sax c'est ça qui est grave da fay nekk mm. ba nit ñi mujj la mujj la fàtte xoolal moom tamit et moom pour son cas vraiment mën nañ ci mën nañ ci def xew wallaay mais nee na chaque jour da ngay da ngay toog di dégg yu metti yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, euh, daf ça te ronge le cœur mm. ndax pour man dafa am côté yoo xam ne suñu humanité moo war a jóg daana lii nekkatu affaire politique mm. xam nga oustaz Assane Seck ñu nga bàyyee ko foofu noonu euh, à quelle fin mm. ah euh, ñoom ñeneen ak ñeneen ñi ñu fi bàyyi ak surtout ces illustres anonyme ñu fa nekk ay anonyme yu baree ngi fa ñoo xam ne amuñu benn aysut bu taxaw wala benn neen bu taxaw waxal leen seen mbokk yi amuñu accès au média mm. ñu bàyyi leen fa fàtte leen fa euh, wax dëgg yàlla jàpp naa daal ne xaw ma nag amoon nañu ay temps Euh, nu tudd mooy papay euh, ki ki waroon na ger affaire wu euh, condition wu kii prison yi am na benn tur dama fàtte mooy kii Cheikh Yérim doomu ku Cheikh Yérim amaloon problème. mooy xaw ma ah? voilà mhm. euh, mais poste boobu mu yoroon nga xam ne dañuy ñëw dugg si pour désengorger les planètes et cetera. observatoire mais ce qui est en train de euh, ak surtout ni ñuy yàggee ci prison bi euh, vraiment c' est c' est moi ça me fend le le le cœur. wax dëgg mhm. yàlla donc du ñu ñaan daal apaisement ci ci ci ci loolu ak surtout apaisement bi nag mooy ñu ñu libérer ñi ñu war a libérer am na ñoo xam ne jaruñu libérer ça sage le dis ici am na ay <laughs> wëyeeku bande yu nekk foofu yoo xam ne jaruñu libérer. am xam ne wax dëgg yàlla libéré leen dafa dafa dafa jaadu. donc nee ne euh, pour en revenir à ta question. Euh, euh, bu Amadou Ba bi wax naa ne bett na ma bett ma bett na ma dans la mesure où euh, et puis parce que gis nga ko comme enfantement ça s'est fait dans la douleur le choix n'était pas complètement évident euh, donc wëndeelu na président takkamti na ko ba sonn Euh, mujj gi euh, choisir na ko peut-être parce que euh, ñaari foofu ñaari ñaari ñaari mbir rek ñoo fi mën a nekk mooy dégg naa ñuy wax naan ay choix de raison choix de ceci mais ma dama jàpp ne ñaara mën a nekk mooy Amadou Ba moo fi moo fi sason parce que certainement def nañ seen ay sondage comme ni ko ñëpp di waxee et gis nañ ne c'est le mieux indiqué et tout ñu ni nañ ko fi teg Euh, wala beneen bi mu nekk un cadeau empoisonné cadeau empoisonné euh, mooy euh, jiital nga ko parce que justement y a les pressions y a les sisi nga naa ko fi teg waaye def comme d'habitude on a l'habitude avec le président Macky Sall les élections passées sont là pour le prouver dangay ngay jiital kenn ba pare jaar ci suuf yoraale yorewaale yeneen candidat mooy yema dégg fa xëy nañ am occasion dellu si waat si amaale si suuf yeneen pare na waale yeneen candidat ci suuf euh, euh, loolu euh, loolu yëpp nag lu mën a lu mën a nekk la te lu possible la par contre man dama jàpp ne Amadou Ba l'un dans l'autre occasion bii la amee la am pour d'abord dëggal boppam parce que moom ñun li ñuy wax ni supputation yi ñuy wax nii moo ñu ko gën a xam moo gën a xam téeméer junni yoon ne euh, président Macky Sall est-ce que yéene na ko lii wala yéene ko ko est-ce que dafa nekk encore un candidat par défaut comme euh, un premier ministre par défaut dans tous les cas lui il en est conscient il le sait ndax sagam ñun ñi ñoo taxaw da ko bu ko sax wax yi ñu ci wax nii rek <laughs> ça va lui mettre la puce à l'oreille donc euh, la finalité de cette affaire la mooy Amadou Ba à cette occasion ou jamais Euh, mu dëggal boppam prouver parce que Macky Sall yéene ko ko ak mu ñàkk ko ko yéene. Mhm. moom mooy dem ci terrain bi moom mooy dem xeex ji moom moo war a justement wane ne. Euh, euh, donc occasion bi la am pour montrer de quoi il est capable mais est-ce que ça sera facile ay. non ça ne sera pas facile te Amadou Ba ñi koy gën a sonal. Euh, mooy waa APR. waa APR ñoo gën a sonal ñi mu bokk APR benn bokk yaakaar ñoo koy gën a sonal waaye euh, moom am na parcours ndax dégg naa euh, comme muy wax ne jaar na PS jaar na fii jaar na fële ainsi de suite keroog maa ngi lire Jeune Afrique benn interview bu mu defoon muy wax ne il est capable de puiser dans l'électorat de Taxawu de Pastef et cetera dans tous les cas c'est l'occasion ou jamais qu'il de prouver et de montrer parce que occasion bi dootu ko amati de qui les qui peut faire des miracles waaye par contre ces miracles là problème bi mooy ki ko fa teg moo koy ñu koy pàdd galgal ko mhm. <laughs> donc loolu moom euh, nee ne ah euh, euh, lu te premier jalon bi dina feeñ ci remaniement bi ñuy xaar ñun ñëpp ñu ñu xool ñuy dugg ak ñuy génn fan la féete ak fan lañu féete kan mooy génn ak kan mooy dugg loolu tamit benn benn indicateur la. mais déjà li ñu commencé gis et là je pense que je je dem ci Serigne Saliou. Mm-hmm. lu ñu commencé gis ni euh, par rapport ak ñi ñi jotagum génn ci remaniement bi euh, day dooleel un peu euh, côté Amadou Ba avec ce qui s'est passé. bon tu sais aujourd'hui quel que soit le gouvernement qui sera mis en place il va gérer les affaires courantes c'est tout simplement ça il reste cinq mois mois moo ci des au grand maximum donc gouvernement bu fu mën mënu fi indi leen leen leen cest pour gérer genre transition la rek mais li ci gën am solo actuellement ni mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy laaj baatu réew mi xam nga boo gisee bennoo je dois même dire l'APR parce que en réalité bennoo n'existe même pas boo gisee bien sûr ñeneen non non ah, il n'existe pas ne parle on ne parle pas de ces gens c'est-à-dire bu fekkee ne yow da nga nekk à la nañu wax APR rek tout simplement mais tu sais que les PS ak les LD debout LD couché dara c'est-à-dire tous ces gens là amul fii li fi am APR moo fi am donc parlons vraiment du candidat de l'APR peut-être sous le manteau de de de Benno tout simplement la difficulté soo xoolee président bi mu defee déclaration de no candidature ak heure bi mu waxee ci la choisir le candidat qui va porter les couleurs de Benno en 2024 69 pour ça 69 jours c'est pour montrer toute la difficulté bi nga xamante ne moom la moon parce que en réalité c'est lui qui devait être le candidat mais au dernier moment avec la pression le président a reculé donc il n'avait pas de amuñu woon candidat loolu mooy wax bi léegi nag comme que amuloo candidat il fallait quand même passer par des mécanismes démocratiques pour que ñoom ñu war